Mm-hmm. en fait ce qui se waxee que ni nekkatul candidat ba tey et ça transparaît dans les unes de la presse mm-hmm. euh, tout le monde est perdu on a l'impression qu'on était dans une dynamique et que ñu jékki-jékki rek moo am une cassure donc kenn xamatul a quel saint se vouer qu'est-ce qui va se passer donc on est dans l'expectative mm-hmm. et on est dans les projections mm-hmm. ci loolu la ñu toll instant bi nii et ça transparaît dans la dans dans dans la presse mm-hmm. euh, dans les unes quand on regarde les unes de la presse il y a pas grand-chose à dire en fait parce que il y a dafa am benn ralentissement au niveau de la dynamique politique bi nga xam ne ci lañ nekkoon li waral loolu mooy depuis 2019 opposition bi dafa jóg ñi nga xam ne ñoo ci gën a fës ci opposition bi ne troisième mandat du fi am te boobu Macky waxul day def troisième lu mag yi def xam nga loo bëgg a gis rek bu yàggee nga gis ko. Mhm. tey su ma amee lu ma doon seet ci yow. wala lu ma xalaat ci yow. Mhm. loo mënti def sama interprétation toujours daf may ramener. ci li mhm. ma bëgg. ci li ma xalaat. te loolu moo ñu yóbbee li fi xew yëpp. depuis 2019. Macky day def troisième mandat. bu Macky demee fii ñu ne troisième mandat. bu mm-hmm. Macky defee lii ñu ne troisième mandat bu waxee Macky waxee nangam ñu ne troisième mandat. wax jooju indi fii. Mm-hmm. coow lu rëy. Mm-hmm. ba ay nit ñàkk ci seen bakkan. ba Macky Sall waxee keroog ba tey li ñu war a xalaat ñun sénégalais yi mooy est-ce que jaroon na ko. Ah, est-ce li fi xew yépp. tout ça jaroon na ko. maanaam dañ ñoo nettali gént ki Sall. maanaam nit daf ñoo nettali géntam nettali ñu gént Macky Sall. ok di ci wax lu ñaaw di ci dox lu ñaaw di ci jëf lu ñaaw. ba tax na bi Macky Sall ne man nekkatuma candidat et puis nag ñu emballé wu xam nga tout le pays était emballé ñun ñëpp dañu emballé ñëpp emballé wu ñëpp nekk ci di ci wax di ci wax di ci wax di ci wax di ci wax problème Ousmane Sonko ñu ne c'est pour l'empêcher d'être candidat parce que su nekkee candidat Macky Sall du jàll. Mm-hmm. problème bu fi am ñu ramener ko à la question du troisième mandat notre vie a été rythmée depuis 2019 par la question du troisième mandat mm-hmm. léegi Macky Sall nee na bokkatul ñun li ñu war a def xam nga mooy lan mm-hmm. seetaat suñu bopp quand même parce balaa ngay fël gémmiñu sàmm da ngay xam la muy wëlis Idrissa Seck mi ngi ko doon fàttaliku ba li paase. Mm-hmm. mënoon nañoo teey am na ñoo xam ne nag dañuy jàpp ni rapport de force. Mm. moom moo tax Macky Sall bàyyi déedéet man yaakaaruma loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que man dama bokk ci ñi gëm ni ñi jàpp ni la candidature de Macky Sall était une question de légitimité pas une question de légalité pas une question de droit man loolu laa jàppoon. man dama bokk ci ñi jàpp loolu. te waroon na bokk daal waroon parce que li tax Abdoulaye wadd bokk 2012. Mhm. mënoon na tax moom mu bokk. Mhm. parce que man dama bokkoon ci ñi doon défendre la candidature d' Abdoulaye Wade en 2012 te man duma wax di dellu ginnaaw. Mhm. di xëccaat sama wax. man loolu laa jàppoon. mais moom moo moom boppam. mais léegi ñun nañu xoolaat suñu bopp. dëgg la nit da ngay xam li yenu maanaa. parce que lu yenu maanaa xel nangu na ko. Hmm. mais li nga xam ni xew na fi boobu ba tey est-ce que jaroon na ko. jaru ko c'est te lii moo koy wane. journaux yi amatuñu lu ñu bind. ñu bind. ñun Sénégal dañu xaw a doy waar. Hmm. parce que nous avons une souveraineté à épidermique à fleur de peau. bu ñu waxee France dégage France na fi jóge France nii tubaab yi ñooñu moom tubaab yi nii tubaab yi naa te on est ña koy wax. tey Ousmane Sonko waroot na jomb di toog ak waa France. non loolu dinañ ci ñëw la. non même ma yeggale parce que ci actualité bi la. waaw tey te sa France 24 ñu ngi leen di tudd aussi li tax ñu wax que ni France ak mm. Sénégal fi mu toll nii y a de l'eau dans le gaz loolu la. France moo yónnee ci Ousmane Sonko mi nga xamante ni moo ñu gëmloo woon ni dëkk bi dañ koo jaay tubaab yi. Mm-hmm. que tubaab yi dañ fi war a jóge. Mm. que tubaab yi amalu ñu njëriñ. Mm. que ñun dañoo war a génn franc CFA. que tubaab yi ñoo moom franc CFA que ñun mënaluñu suñu bopp dara moo ñu ko wax arranger toute la foule tout ce discours populiste là kon moom tay waroon na jomb di wax ak France loolu mooy dëgg lii dëgg mooy su fekkee dama ne yow warumaa defanteeg yow te bis bu ma fi toogee lépp loo fi am dafiy jóge warumaa toog di négocier ak yow loolu mooy benn. perception bu Macky Sall demee France. ñu ne Macky jaay na jaayi na senegal bu Ousmane ko toogee France ñëpp ni ñiig ñemewuñu wax ok kenn ñemewul wax